ku ne am nga yitte ji fanaan ci sa xol waaye yitte ba yitte jeex am ngeen ne bi ci gën mooy di jëm ci yàlla ngeen seet li ngeen yaakaar ne moom la nit ñi gën a aajowoo ci fi ñu toll te ñu nit ñi am li ci gën mooy diine ñu dem ba toll ci diggante boo xam ne ku am xel yaa ngi tiit ngir sa diine ñu amul xel di tiit ngir seen am-am ñenn ñi tiit ngir seen jàmm ngir seen wér-gu-yaram ñu ngi ñu am denc ko def seen poos ngir ittewoo yàlla ak yonent bi ak lislaam ba nga xam ne ngeen di ci ëllëg ngeen tànn seen thème bi ngeen tànn mooy thème boo xam ne sam actualité lu tubaab yi wax bu brûlant muy lu fi xol yi toll ci jamono ji toll fi nit ñi toll ci jamono ji ngeen seet ko bëgg ku leen ci waxtaana ma di leen sant kon di leen gërëm sant bu amul ab ndax képp koo xam ne woote ngay jëme ci xam ne diine yàlla ji sa tuyaaba yàlla doo ko xam yomal xiyaam kële wu ñu itam def ca la man ak ka ñëw fekk ko bu keroogee bu ñuy fay bu ko fekkee ñee leen ba ci bokkul woon jamono bii ngeen bëgg a xamee ne jullit di jàppe diineem di jamono bu wuuteeg yi nu weesu dafa am shaair bu ne woon maanaam poète arab ata zamana banuuhu fi shabibatihi fa sarrahum wa ataynaahu ala harami mu ne ñun njëkk ñi ñëw nañ si àdduna fekk si àdduna bu bees tàq lépp bees jër fekk si leen ci dem fekk si la gën si ñoom fekk si la dal seen xel fekk si jàmm fekk si lépp ñun ñëpp ba àdduna màggat ñu ñëw fekk si lu ñu soof danger bi tax képp ku am xel nelawatoo dëkk dëgmal doomu aadama yi nit aajoo seetaat xelam dellu gannaaw aajowoo ay leçon yu dëgg yu tegu ci dëgg te am njëriñ mu gànnaayoo ko leçon yoo xam ne day yee xel yi yëngat dikk yi dekkal li dee woon teg ko ci yoon yu jub boo xam ne ku ca jaar doo ko rëcc ëllëg doomu aadama war a yëkkatiku ba ca kaw njolaxtan la sëpp adduna bi nga xam ne daf koy fekk muy matérialisme rek nit ñi njëriñ lu teewul li ñu mënul a teg seen loxo jaralu leen dara doomu aadama yi mel ne dañ leen a xabtal ci li leen di lor ëllëg mel ne ku jóge ci kaw njolaxtanal doj xalambaay wut ci suuf adduna nekk diggante ragal tiit ak yaakaar ñaar yëpp teguñu ko ci lenn loo xam ne fondement la ànd ak xër boo xam ne jóge na dayoo ñu fàtte lan mooy sensu dëgg dëgg ji ak dund ci adduna lan mooy sensam lan mooy réalité am ñu fàtte ko bu yàgg doomu aadama jàng nature bi ba mokkal ko xam reegal yi di ko réussir di naaw ci jaww ji di dem ca weer wa di xot ci biiru nit dindi jàngoro ji nekk fii di janloog lay xew ca Amérique lay xew ca Makka di dégg la ñuy wax tax ba mën a jëfandiku ci doomu aadama mu mel na leen gënal noonu ñu note suuf si note ko nit ñi note ko jaww ji note ko note ko géej gi xam li ci nekk lépp mu di njàmbaar ak itte soo xam ne jëmee nañ ko ca la leen ko jaral li teew ba àgg foofu waaye liy nag seen bakkan seenu njàmbaar yi jëmu ci lii tax adduna bi neex a dëkk jàmm kese am ci nit ñi nekk ci yoon woo xam ne duñ ci jógee ëllëg duñ ko rëcc rëcc te texe bu leen xam-xam mën a may ci adduna jub mën na leen a may di ko ëpp fuuf ëllëg mais sàggane loolu adduna bi kon toll ci li arab di wax azma mooy li tubaab di wax crise crise boo xam ne du crise spirituelle sax rek mais crise métaphysique la nit ñi mbirum baatin mbirum leeru yàlla mbirum yërmande yàlla ñàkk ko faale yëmuñu ca ndax matee diini yi adduna da ngeen nga ca gannaawam loola ko la ci di toll lay xew ëllëg gannaaw bu nit ci deewee suñu yoon ndax dara nga ca gannaaw dund bii wala dara nit ko suñu yoon nit bu dundatul jaar jaar yi mu war a jaar la fay xew la koy waral suñu yoon daal di doy waar loolu kon li shaa'ir bi di poète bi waxoon ne dana dikk fekk adduna bu màggat bu ràpp ñu dëkke ko ràpp ràppam yi du ñu lor te ñu jàpp ne moo ñu jëriñ dal di ñëw ku nekk xam na ne adduna ñi ci yëy ak ñi ci des sore nañu lool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mab'asi wa qiyaamu saati hakaza jamono ji ma ñëwee ci adduna suñu borom yónni ma ak adduna bi dund dund dund ba fii mu toll bi may ñëw ak li ci def ñu ñaari baaraam ñu sutantee rek la ñu sutantee mu génn benn gis waxtu sa saani suuf jant biy waaj a xonq mu ne gis ngeen fii jant bi toll ñu ne ko waaw mu ne li des ci mu so ak li mu weesu ba mu fenkee ba léegi mu ngi mel ne adduna ba mu tàmbalee ba léegi fi mu toll fii nu nekk ak li ci def noonu lañ ëppante ku nekk xam ne adduna suuf si ba mu amee léegi ay milliards yi at luy dund ba mu ci amee ak léegi di ay ay centaine milliers yi at ba li ci doomu aadama yi dëkk ak léegi mu mat ay junni junni at ñuy dem ba doomu aadama mi ci dëkkoon di wël di soppiku ci ak dundam suñ borom tàmbalee ba humanité nekkee ci enfance am ci ndawam ñu di leen indil naka jekk diine ji d'accord ak seen xel tolloog seen civilisation ak seen itte waxtu woo xam ne weesu na marxala boobu mu indi beneen yonent bu indi beneen diine ju gën a mat ci ni doomu aadama mate ni mu gën a mate ci kooku ni mu amee expérience ni mu yàggee ni mu toppatoo xam-xam ba fi mu àgg ba ba ñuy ak ci diine yi islam mu gën a mat ci diine yi ni nga xamee ne état bi enseignement yi enseignement primaire mu tolloog le judaïsme enseignement secondaire tolloog christianisme ba ci enseignement supérieur tolloog l'islam nga xam ne doomu aadama àgg na ci maturité am ba mu indi ko diine joo xam ne ba féeg nit a ngi ci suuf di dox du ko weesu mukk du mentalité am du civilisation du daraam alquran rawe science ay millénaires yi siècle yoo xam ne fu ñu toll di découvrir ay réalités yoo xam ne daan ko waxtaane bu ci kanamee nit nag bañ ko tuddee sàqalee ni moom ak jinne jur seen man-man bu bari seen itte ca la ñu bëgg seen xel mu rëy ca la leen ko jaral ba ñu tuddee leen ñaari woon ndig ci bopp yi ñoom nit ak jinne du ñu daj nit ñoom ñaar di soxorloo ci suuf si mu di lu baax ak lu bon mu di lu bëgg lu dëng mu di lu ñoo xam lu naqari mu di lu mu doon nit ñi gën a mat nit ñi gën koo topp am ci seen wet ñeneen ñoo xam ne na la dëng jëy mate na la pexe yay baree na la itti jëy mate ci yàq rek wa inna shayatina la yuxuuna ila awliyaihim li jaadilukum waaye wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuuna suñu borom nee na seytaane yi mu sàkk yulli leen ci suuf si ñu fekk fi nit ñi te seen ittee du lu dul réeral texee diñ ko ëllëg dañuy sax ñu lir ko ñoom ci nit ñi ay xalaat yu xóot yu ñaaw yoo xam ne nit ki ko xamul daf koy jàppee lu dëng wala lu yàq xelam ba indi ko sikk sàkka fekk dara du ca dëgg bu ngeen leen toppee nag innakum la mushrikuuna nit ci mën-mënam bu bari ndax nit bi mu njëkkee wàcc ci suuf muy aadama keroog lañu indi xam-xam ak yar ñoom ñaar ñi war a ànd ba faw buñ tàggoo rek sikk am bu xam-xam kese demee ñu ci fële yar nit mujj di seytaane rek soo xam ne lu bon lay fexe te day bari kàttan bu ab yar matee ñu wacc xam-xam gannaaw nit mujj di benn borom benn dëkk parce que boo xam ne genn wet rek lay gisee wala muy gumbo ñu dem nag ba doomu aadama def toor wu mag moo di wacc fële ak yar wacc fële gëm topp xam-xam ba yàlla may ko kàttan li ma doon waxtaane léegi ñu not géej gi not jéeri yi not jaww ji not kaw ak suuf ci jëyit suñu borom nga xam ne boo sëpp woon adduna ci lu mat lu matul junni at sëpp ko léegi nga gis ne doomu aadama yi sopp ko nañ ci zahir ak ci baatin sopp ko nañ ci seen melo seen dund sopp ko ci seen kanam sopp ko ci seen yére lépp di tegtale ak jeng ci jëm fay lore ak fàtte fay jëriñ yàqu-yàqu yu bari lool yu feeñal dorog jële si sàngara xeeñ feeñal wërë feeñal xeeti jëfandiku yoo xam ne yi day delloo nit ca daraja ja ko yàlla tegoon daf koy delloo ba mu gën a suuxe muy laqad xalaq na linsaana fi ahsani taqwimin suma radadnaahu asfala saafilina radadnaahu asfala saafilina bind na nit ca bindin bu gën a rafet nga xam ne doomu aadama bi ko yàlla bindee lépp lu mu bind sàkk na ca loola def ci doomu aadama mu boole melaw malaayika ak melaw baahima ak melaw woo xam ne kenn tëpp ci moom rek moo ko yeyoo moo ko wéetoo nga xam ne mën naa dem ba mel ni malaayika yi ci jege boromam mën naa dem ba gën a xam ma lu yàlla malaayika yi waaye mën naa dellu gannaaw itam ba mu xaj gën ko mbaam ko gën gën ko lépp gën ko mooy su ma def dinaa asfala saafilina ci yàqu-yàqu yii mën bu ko toppee nit di waddoo waddin wu jëkkul boo xam ne du waddinu lislaam di wax waxin woo xam ne du waxinu lislaam te lislaam ñëw réglé dundam gépp na muy doxit na muy waxit na muy daje lim ay moroomam la muy jëflante ak ñoom xam leen war a teg la muy lekk la muy bàyyi la muy sol loolu lépp ñu sànni ko fële wax ju ñaaw moo xam saaga la moo xam xaste la moo xam jëw moo xam rambaaj lamin yi daal di tekkiku ndax amatul lu ko tënk ndax ragal yàlla rek ko mën a tënk cër yi nga xam ne cër bu ci nekk yomal xiyam da ngay wax te cër bu ci nekk ñu ngi koy faral di waxe bunt ba ca ubbi ko ba ci xol xam ne jëf ji muy jëf jëpp day jeexital ci xol daf ciy indi ay tâche yu lëndëm lu loo fa jëf lu tànk jëf lu lamiñ wax lu bët xool lu nopp dégg lépp day marqué yi ci xol bu xol duñ ko dul fóot day mujj dang fi mu nekk ñu ñu seetatuñu li ñuy lekk seetatuñu li ñuy sol seetatuñu li ñuy wax ak na ñuy waxe seetatuñu li ñuy jëf di wax lu amul di muruj di wor di jëw di rambaaj di reetaan suñu yaakaar ne ñoo la tane defe na ñoo gën ñëpp lépp du lu aam te du lu tere naka noonu lekk alal yi sa moroomum jaam ci loo xam ne tëddul xolam moo xam da nga carte moom ba dàq ko lekk ko wala da nga koo lekk naaxtaayal ko dañ ko fay wala da nga koo nax wax ko lu amul ba mu jox la loo xam ne bu dul yoon loolu nga ko wax du la ko jox wala nga melowoo melo woo xam ne dañ la teg ku baax ba ne kii waaye yàlla la naa ko jox sama alal bii ngir yàlla fekk na nga wane melu loolu mu di ay war ba ci aada yoo xam ne day tax nit ñi di lekk lu leen lewul warugar yi ñuy joxe joxe téeméer di laaj junni wala ngay laaj ñaari junni ribaa la te aada woo nañ ko ba defee ne mënuñu ko bàyyi ba jigéen ñi fasatuñu ko yéene bàyyi ndax ragal seeni morom ak ragal ku leen ŋàññi wala ku leen xeeb wala ku leen yàpp te la ñuy daw day fa ñuy daan cee ko yées mëbët mu gudd mel na sudul si dul jóg mukk mel na si dul jóg mukk du mëbët mëbët mu jëm ay at xam ne mooy li seytaane gën a bëgg ngir dee man dee man laa bett rek nga fàtte dee nag ba faw ba booleetoo ko ci say mbir mu ne de lu kulli jël bi masram jëmm ju ne daañu wax ba mu xóot ñu suul la ci suuf xamuloo ban bis lay doon xamuloo kañ la te dee moomu bokk na ci li gën a mën a mata ittewoo gën a mata fàttaliku sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ma seet tagg nit ci ragal yàlla ak farlu ak jaamu te dañ laaj ndax naka ngeen ko teg ci fàttaliku dee buñ ko ne buñ dégg mu di ko faral di fàttaliku dee mu ne fa ngeen ko teg néewu ko waaye buñ ko ne kooku day dee di jëp ci xelam di jëp ci lamiñam mu ne waajaa ngoom mu ne dee day tàmm nañ ko ba dootuñu tiital liñ ca liñ ca jaare bu la tax mais waxtanu dee waxtu ruu di génn ci yaram mboolem pepp bu nekk ci yaram bi moo xam yàpp la wala deret la wala yax wala yëq wala yu pepp bu ci nekk dana xar xarte loo xam ne bu doon ci nit ci tollul foofa bu ñu ko ko tegee rek du ko attan benn pepp bu ci nekk waxuma naag nag mboolem yaram yëpp di xar xarte loo xam ne dara mënu ko dégg ci adduna lu dul ci nekk ci suturaat te mënu ko du ko dégg ngir sagoom mu ne métti ci ndee bu yemoon ci loolu rek day sëpp musiba ci jëmm bi nga xam ne dafa tëdd rooxam gi tàggoo di génn ci moom te dootu dellu si malaaka ni muy jàkkaar lool ñu rocc ruut aw meloom ni ko jàkk rek day na mbugal te ci dina ci tiitaange joo xam ne bu dee doon ñaar wala ñett dana dee junni yoon foofu nga xam nga ne junne sax bu la fas yéenee def lu bon da ko yitee bokk ci dee dootoo doon nit koo jommee te jinne bi gisee malaayika jombi rawatina nag malaayika ñi nga xam ne dañ koo xaroo ngir mbugal mu waaje la gën a raglu ci ci jëmbam ca lam am teewoo ko ci kanamu doomu aadama yi tàggoo di génn àdduna lu jànloo moom jànloog melo jëf yi jëf yu ñaaw yi nag ni melow malaayika muy raglu raglu raglu jëf yu ñaaw yëfu gën a raglu jëf yi mu jëfoon yépp day teew ci kanamam dox digganteem ak leeru yàlla dox digganteem ak ndëndëm yàlla kàttanu yàlla ak yërmandeem safaraw teqali kooy dal di takk nee na boo dëkkoon ci bërëb xamuloo lu dul bërëb boobu li nga bëgg ñëpp ci la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gën a bëgg ñëpp nga xëy di tàggoog ñoom te dootoo leen gisati mukk dana nekk naqar ci yow woo xam ne ak tiis dana doy waar mu ne génn addunaa ko raw adduna bi nga nekkoon nga xam ne xamuloo lu dul moom sa lépp min ko say bët say nopp say cër lépp min adduna li nga amoon lépp nekk nga di tàggoo yooyu de wan ko gannaaw bàyyi ko fi dara gën a ko tiis xam ngeen ne ñaari bu ñu amoon kenn ku nekk junni kenn ki ñu fab ci junneem bi ñetti téeméer kii ñu fab ci junneem bi juróom ñetti téeméer xam ngeen ne ci ñàkk juróom-ñetti téeméer ci junneem day moo ëpp naqar ci ci ñàkk ñetti téeméer rawat na nag ci ñu fab junneem bépp jël ko ci moom ngeen xam ne ko nit ki li mu gën a amee bànneex ci adduna ni mu gën a barilee ci adduna ni mu gën a bare ay soppee ak lu mu bëgg ci adduna bis bu koy tàggu te dootu ko gisati mukk dana koy naqar dana doy ciis dana doy fitna nga jëm ci béréb boobu nii nag bërëb bu rek boo xamul lu fa nekk lu mu doon xam nga ne loolu day ñu doy doy waar ñu des ci li nekk ci sukuraat di ko yàggal bàkkaar bàkkaar génn na dox bu muy dox te diggante yërmande yàlla ak leer ak yërmande malaayika li jël ci karnu bi waaye yan bu diis lay doon xam nga ne ci yenu juróom-ñetti kilo teenu ñaar bi ci loo ko gën a diis kon ñaar ñi bokk di génn àddina ci gën a bari bàkkaar moo gën a diis dana bëgg yenn ko te du yenn ko mukk yenn bu takk ci boppam lay doon du ko yenn ko mukk mukk mukk mukk ba saa taxaw kon doomu aadama bi war ne xalaat xarte yooyu nga xam ne molécule bu nekk ci yaramam mu ngi koy xar nga xam ne benn nit attanu ko yaramam nit def ko mu boole ko malaaka mi muy jan loolu ak melaw mi mel ak jëfam yu ñaaw yooyu ak mu mel ak teqliko yooyu muy teqliko bi mu bëggoon lépp laa xayra xayrun ba'dahu naaru wala sharrun bi sharrin ba'dahu jannatu la nee na dëkk bànneex jëpp xéewal jëpp teraanga bi mu doon soo xam ne safaraa koy wujj day dañ rek safara yi ñëw tegu ca du bànneex du am am du njëg waaye yépp tiis yépp naqar yépp coono yépp métit boo xam ne àjjanaa cay tegu du métit du coono du naqar doomu aadama du wax koo xamee ne mu ngi tëdd ci lal bi muy génnee àdduna lal bi muy faatoo dana fàtte bépp xéwal bi ma sa am bépp teraanga bi ma sa am dana rëcc lépp lu mu bànneex woon ci àdduna dana rëcc lépp lu mu dëggoon ci àdduna dana rëcc rëcc lépp lu rafetoon mu jàndoog moom ndax yooyu yëpp ay gaaf lay la mu gënoon a bëgg lay gën a si la mu gënoon a bëgg ci àdduna lay gën a si keroog ci diggante boobu day jàndoog alam bu rafet bi xam ne dootu ci tëddati mukk jàndoog néegam bu rafet bi xam ne dootu ci dugg mukk daf ko fiy woon gannaaw dem dugg biir suuf xaritam yooyu doomam yooyu soxnaam yooyu lépp day tàggoo ñoom ba faw lépp lay woon gannaaw bu keroogee lépp lu mu defoon lu dul jaamu yàlla rek dana ko rëccu lu ñëw ci leneen lu ñëw ci gën a métti guddi gi njëkk bu doomu aadama njëkk fanaan ci bàmmeel guddi gi njëkk ci bàmmeel dara dara dara melul ne moom dara amul dara lu mel ne moom ku ko dul xalaat lu la neex defal waaye faaw nga jaari ca foo mën a jaar dañ ci jaari doomu aadama bu nekk reer làmb lalam fas yéene nelaw nga làmb sa kanam dajalo lu di koo si bàmmeel nga làmb sa gannaaw dajalo lu di koo si bàmmeel dootoo lekk dul daani malaayika doo naan bi dul daani malaayika li nga defoon ñu lépp la ñuy seet du ñu lee bindal ci nga jaaroon coro bu nga juddoo ba bi nga duggee fii nga ne aw ma xalima ñu ne la sa baaraam bi mooy sa xalima aw ma daa ñu ne sa gémmiñ bi sa tafsi bi mooy sa xalima nga ne aw ma këyit ma bind ñu sa càngaay bi mooy sa sa këyit nga bind keroog bi nga ne bi nga juddoo daanu suuf ne bee nga bind la tàmbalee foofu ba keroog bi sa roo bi génnee lépp da nga ko bind buñ wax mbugalu bàmmeel yàlla na ko yàlla umpaleel li ma waxoon lépp du dara ci kanam mbugalum bàmmeel yàlla na ci yàlla musal jaam loolu moom dara jar ko dara dara adduna jaru ko dara dara amul dara lu ko jar li koy waral bàkkaar bàkkaar nag li nga xam ne mbugal mooy saafaraam li nga xamee ne ku lekk posen dee yi nga xamee ne posen noonu lay xëcce dee noonu la bàkkaar di xëcc mbugal ak xeetu bàkkaar wu mu doon ak xeetu mbugal wu muy xëcc du dañ loo tax na nit ki kon li koy tax a mucc fii la koy sabab loo pexe yu bari yu nit am pexe yu ñuy wute xaalis pexe yu ñuy fexee ba am la mu bëgg bu ko fexee jub yàlla dimbali ko mu jub nit ki bu fexee ba su muy jaar rek mu xam ko di dem ci béréb yoo xam ne daf koy dégg lu koy fàttali ëllëg ak lu koy delloo ci yàlla wattandiku li ñu tuddee ma jaaju ci saqaaw mooy jataay yi nga xam ne jataay yi texee bi la jataay bi lay fàttaloo yàlla di la fàttaloo su ëllëg nga wattandiku ko wala nga di ko néewal comme texe yooyu nga xam ne yàlla jox na ko doomu aadama lu mu bëgg lu mu doon rek am na pexe yoo xam ne moom la ko bëgg wuti bu fekkoon ne pexe yooyu yëpp jëmale na ko ci jéem a jub ngir mucc ëllëg lu ma ko waxee rek yàlla dina ko dimbali mu mucc ndax li la wut xaalis jaral li la wut jàmm jaral bu la ko jub jaralee nga da nga jub nit a yar boppam de ndax àdduna gis bu ne bind bu tooy la lépp loo gis nit def ko mu lor ko nga wattandiku ko ndax bu dee ci saa si la ko lor bu ëllëgee da nga ko wattandiku soo séenee lu lay lor ci àdduna lu mu doon nga daw soo séenee gaynde daw soo séenee oto buy ñëw nga jàdd tali bi soo gisee safaraat doo ci dugal sa loxo bu kër gi tàkk nga génn noonu ngay watoo sa yaram lii nga war a wat nga war a watoo sa roo gi nga xam ne mooy yëpp texee di ëllëg ak mbugal moo ko war a raw kon di dellu ci yàlla waxtu wu nekk di ko fàttaliku di jéggalu di tuub tey delloo ci sa xel te bañ a waru bañ a sàggan bokk na ci li am njëriñ lu ko waxe woon rek béréb bi texe yi te mooy béréb bi turu yàlla yi béréb bi waare yi béréb bi jàng alquran yi ziyaare bàmmeel yi ziyaare nit ñi lay waar jàkka yi jàng alquran yépp xol ni ñu koy faral di waxee toujours rek dafa mel ne yëre yi ngay sol day léeg-léeg day tilim aajoo raxas naka noonu la xol di aajoo fóot yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mas am ku ñu wax xam la waxtaane nañu ko ci ay conférence yoon yu bari dafa duggoon ci marché bi ba mu séenee sidna abubakar radiallahu anhu dal ne naafaqa xanzala moom xanzala ci boppam mooy wax naafaqa xanzala xanzala daal naafeq la maanaam moom mu ne moom naafeq la sidna abubakar ne ko déedéet doo naafeq ne lu tax nga ne naafeq la mu ne man dama bu ma toogee fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy waare damay mel ne maa ngi jànloog ajjana jànloog safara ak arata kursi wax boo xam ne jóge naa ko dem ci kër gi di coow ak jigéen ñi wala ma dem ci marché bi di waxaalee ko jënd dellu melaat neneen dafa laajoon sidna abubakar sallallahu alayhi wa salatu alayhi ridwanullahi te fekk yonente bi nekk dina ko tontu ci saasi waaye booba gannaaw yonente bee ngi fi dafa jàpp ci loxoom bañ àgg fekk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam toog mu ne ko nekk li nga ma waxoon wax ko yonente bi mu wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xam dala ñi ngeen di mel di ngeen toogee fi man bu ngeen ko mënoon a wéyee mel noonu kon da ngeen di saafonte malaayika yi waaye nag léeg-léeg rek ngeen di ko bari di bari jataayoo man di yàgg bari lu mel noonu bu yàggee waaw xam wala moomu mu gën a topp loolu ba di saafante ak malaayika yi imran ibnu xusayn bu mu déggee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne nattu day yëkkati jaam di dindi siiraay yi dox digganteem ak boromam bu muñee te xam ne yàllaa ko ko teg ba bu muy jàlloo kéemaani boromam imran sax ci loolu suñu borom di ko nattu ay métit mu di ko muy bay jàlloog malaayika yi di niroog ñoom di joxanteeg ñoom loxo di dégg li ñuy wax benn bis benn taab dal ko bu métti muy muy ba mu yàgg ñu ne ko soo ko ñaasee rek dana wér mu dem ñaas ko gisatul malaayika déggatul malaaka mu di ko jooy ay weer ba suñu borom tegaat ko beneen taab boo xam ne ñetti taab yu gën a métti di woon mu continuer ko ba delluwaat melaat nam meloon continuer mbuñ ko ba suñu borom yëral taab yi xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci taxawaay yu bari day wane ne daray adduna jël daray alaxira noonu nga xam ne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko fóot lu bari ci suuf yoon yi dañ daan def waxtu woo xam ne jaamu nañu yàlla xam ngeen ne doomu adama day yokkat day dem ba tàyyi ba sonn ci jaamu yàlla bi bu ñu demee seeti ku ñuy wax Muhammad ibnu Waasi ci melaw ko yàlla melal ci ragal yàlla ak farlu ak jub bu ñu ko gisee rek dal di sawaraat ay ay semaine yi semaine yi semaine di jaamu yàlla te dootuñu noppalu leen xam ne kon jaxasoog ñu baax ñi am na njëriñ lool te baax na lool ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na annaas niyaamu ida maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw de waaye bu ñu dee daañu yeewu kon nga xam nit ñi nëbb nañ leen secret yépp yi ñuy gis yépp la cay mujj ak la muy indi umpale nañ ko moo tax ñu ñeme yàlla waaye yàlla kenn ñëw ko gaynde sax nit ñi dañ ko ragal waxuma waxuma laa yàlla suñu borom tabaraka wa taala waaye nag bu ñu dee ba ñu ñori kiiraay yooyu nekkoon seen diggante ak xaqaaxaq yi ak réalité yi bu keroogee daañu yewu yewu te boo xam ne dañu naan jar xam lépp waaye bu boobaa lu muy jëriñati bu keroogee mbóotum alquran tax dana feeñ bu keroog gis boobaa benn secret dootul nëbb ci nga xam ne ci loo xam ne jaam war na koo gis moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam annaasu niyaamun fa iza maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw rek waaye lay daañu yeewu bu ñu deewee ku ci dee da nga yeewu mu ni yamutu maru ala ma asha alayhi wa yasfiru ala ma mata alayhi nit te na mu dundee day dee kon nag rafetalal li ngay dundee bu fekkente ne sa xol bi yépp yaa ngi ko aj ci adduna yaa ngi ko aj ci leneen loo xam ne du yàlla du yonent bi du diine du lu lay jëriñ ëllëg melowoo sa xol bi melowoo ca la la dee di fekk ñu gën a tax ñu gën a ragal deewu betteen moo di loolu le fekk na da ngay xalaat xalaat yu ñaaw te melowoo nga xam ne moo mujj sa xol daf ci sax kon nag doomu aadama bi bu fekkee ne julli la te gëm na dëgg dëgg dëgg dëgg te fonk l'islam julli gi muy julli koor gi muy woor mën na am kattanu mën na dëgër ci moom ba image yooyu mujj ci xolam mu deewaale ko kattanu ngëm ak leeru ngëm gi effacé ko waaye lu jafe lay doon kon nag ngir mën na yàlla ñu ngi ko gën a séenoo ci ki nga xam ne taxoo na noonu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk caaxaan te suñu borom nee na umaa yantiqu an hawa du wax bakkanam du wax lenn lu amul te nee na nit ki ñu mu dinga lay deewee kon nag lépp loo bëggul lépp melo boo xam ne bëgguloo dee fekk na ci na nga fexe ba dindi ko na nga fexe ba gaaw caa génn dañ ne na nga jëfal adduna booy jëfal ak booy jëfal adduna na nga ko jëfal te xalaat ñi nga fi gàtt bi nga fi sax bi nga fi sax ni muy gàtte ci kam ñi nga fi sax rek na nga ko jëfalee adduna